fii si duwaanu Cambérène na 1 ñu daal di rek wàcc gannaaw bi nga xamante ni daal dinañ fay fàtt benn xale bu ndaw daal koy suul si li nga xamante ni moom mooy géej gi gannaaw loolu rek waa Actubuzz daal di wàcc foofu noonu daal di laaj ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofu naka leen gisee ni ni mel gannaaw bi nga xamante ni rek réew mi yëngu na lool wàllum insécurité daal di am fu nekk tey nag dañu daal di dékk suñu micro ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo dëkk di ay yaay ay papa yoo xamante ni ñoo dëkk foofu sa Cambérène fu mbir mi daal di amee ñu daal di ñuy wax li nga xamante ni noonu leen gisee affaire bi. xanaa tiit rek dañuy jëli sax suñu doom yi école man doom bu ndaw laa yor bu jigéen ba mu déggee xale bi dañ ko ba tey nangootul génn. soo ko ne kaay ma yónni la bitig bi sax mu ne yaay am na xale bu ñu ray géej dañoo ragal tiit fu mu nekk nii ci xolitu nen lañ toog waaw metti na torop torop torop torop rey bi bëri na agression bi bëri na tali bi booy tuuri ndox sax da ngay ragal sa paan da ngay tuur rek daw xam nga ne loolu métti na ah dañoo sonn fu mu nekk nii xale yu góor yi nag jël nañ seen décision kuñ ci gis ngay agressé fii dinañ la door ba nga dee waaw seen décision jël nañ ñun dañoo sonn suñu doomi ndaw yi nangootuñu foo ci mbedd mi man xale bu am quatre ans laa am soo ko ne kaay yoon yónni la mu bañ day daw keroog ba mu gisee liir bii dee nangootul génn mu nga nee di nelaw xam nga ne métti na. Ah, jàngat yi ñu ciy def bëri na parce que tamit c'est pas la première fois ñu def ko parce que am na keneen ñu ko defoon fii gaare fii oto ñëw teg ko fi. te ñu majeure partie ñu koy def yëpp dëkkuñu Cambérène dañu bëgg a takkal waa Cambérène te Cambérène wax dëgg yàlla am na sécurité xale yi dañuy dem fu leen neex te dara dara mais dëkk bi moom moo kii léegi daal. léegi li may xelal nit ñi daal mooy ñu prudent daal mais ki ki def lool jëf ju ñaaw joo tam dëkku fi benn Baay Faal lañ wax mu ñëw suul ko xale yi gis ko après sulli ko. waaw ñun sonn nañu dañoo sonn yéen ñu ci mën a jàppale ak sécurité bi na sécurité bi doy ñun tamit ñu jóg jàppale sécurité bi ndax liy jóg fi sonn nañ xam nga ne liir bu tooy bee ñu nang ko si yaayam rey ko métti na torop torop torop torop kuy njaboot war nga xam ne lii métti na doy na waa wasalaam. Euh, sunu nguur gi lépp ñooma wax ndax tey jii nii ay nit soo leen yilifee defe naa ne nga indi ay police si dëkk bi pour nu sécuriser gars yi mais au lieu de nu sécuriser nu ñoom dañuy fitnaal di nu met di nu teg kenn xamul ci tali bi te ñun soxlawuñ loolu tey ñun ay defarkatu mboto lañ dañuy dawal mais il est suñu kaaraange def ko moom ñoom muy seen yitte defuñu ko au contraire ñoom dañuy fitnaal comme boobu ban pays la ne ñii la war a protéger ñi la war a dimbali. tey ñoo lay final ah bàyyi insécurité bi guddi gi nu nekk seen bopp tal seen bopp bàyyi noonu dëkk bi mais ku ci nekk da ngay da ngay def lu la saf nan waxante dëgg ñoom ñi fi nekk pour suñu kaaraange su maanaam suñu di pour nu dimbali nu daal maanaam ci wax ju gàtt nanuy génn ci dëkk bi di xool ñi nga xam ne nii ñoo nekkul ci yoon comme tey gang yi may gis ni gars yi di toog groupe guddi nu toog groupe mais loolu amul njëriñ tey jii nii groupe yooyu ngay xool soo xoolee cent pour cent quatre vingt dix neuf pour cent yëpp ay defkatu ñaawteef lan te pourtant dañ leen di romb nii ah mais au lieu de ñoom ñu maanaam concentré wu ci defkatu ñaawteef yooyu mu jigi ñun population bi la ñuy sonal nekk ci tali bi di la arrêté di la laaj yu kenn xamul ci loo xam ne nii ay ay jeunes lan di daan suñuy doole tey jii nii ñoom ñoo nu mën a dimbali may lancé benn message si nguur gi mooy que ni nan nu dimbali yokk sécurité bi ndax tamit sonn nan ñun dañu am ay tout tànk quoi am ay jarbaat dañu am ay maanaam ay doom yoo xam ne nii tey ëllëg yaakaar nañ ci ñoom mais tey dëkk bi at nii mu demee kan moo wóolooti bàyyi sa doom mu dem fenn kan moo wóolooti bàyyi sa doom muy dox dem ba école yow yaa koy accompagner yow yaay mujj dagg say activité accompagner ko ba ci école pour mu mën a jàngi nga pare dem jëliwaat ko indi ko mais ñun comme comme comme ñun ñun dund day mujj metti. di la wax ne na Cambérène moom vraiment ñi ngi sant yàlla côté sécurité parce que alhamdulilah rabil alamin agression bi niñ koy déggee si àll bi kenn déggewu ko noonu Cambérène peut-être am na ay ñaawteef yoo xam nit ñi ngi koy dégg comme bébé boobu ngeen déggoon ñu rey ko suul ko Cambérène wala waa ñu reyoon indi ko Cambérène mais yooyu yëpp boo ko gisee du nekk loo xam ni d'origine Cambérène lay doon neneen ñoo koy def feneen ñëw Cambérène comme Cambérène dëkk làqatukaay la ñu ñëw làqatu sànni ko fi pour defee ni ñoom loolu dina leen tax mais ñi ngi sant yàlla parce que état Sénégal aussi ñi ngi ciy def ay taxawaay am solo Cambérène nag dëkk la boo xam ne vraiment ñi ngi ciy sant yàlla côté sécurité parce que am nañ kilifa xam nga loo gis àdduna am kilifa da caa baax am kilifa da caa baax loolu moo tax Cambérène comme yàlla dogal na am nañ sécurité am nañ kilifa lu bëree bëri mën na fee xaw a oyof daal waaw ñi ngi sant yàlla surtout plage bi plage bi da band yaa ngi ci plage bi dañuy taxawaalu fu nekk la ñuy nekk xale itam ñoo war a yeewu yéen itam ngeen yeewu xool fi ngeen di dugg bu baax parce que tamit kenn mënul contrôler ñëpp. kenn mënul contrôler ñëpp. mais nag ku si nekk mesure ku si parent bu nekk daal bu jëlee say mesure si say doom say doom dinañ toog seen kër ci parent yi daal laa wax daal parents yi nañ jël xale yi ñu uuf leen ñu toog benn place bu dee ñun suñ mag ñi tam ñun xam nañ suñu wàllu gar ñu def ko waa jeex na nan nu dimbali te yàlla tax. Euh, insécurité bi ku Cambérène ban taxawaay ngeen ci def yéen ñi nga yéen doomu Cambérène. non ñun moom fi moom Cambérène baaxoo nan insécurité bi liñ ko fiy dégg sax bëriwul ndax ñun suñuy matukaay ñu ñoo ko njëkk jël ñun jeunes yi. tey jii nii kun fi fekkoon ngay def lu dul naka su dul yoon da lay teg ci yoon te kenn du ci ñemee interpellé loolu moom bu nekkee côté Cambérène foofu moom suñu xel dal na fa xanaa nu bañ a gis ndax pareen saa da ngay gis ku def ñaawtee fam ailleurs dawal sa oto ba fii ba maanaam rey nit ailleurs indi ko ba fii sànni ko fi mais rarement ngay gis ku def fii ñaawteef te doomu Cambérène def ko lu bon. ñaa may dégg lu côté boobu moom ñun ñun jeunes yi ñun ñoo ci jóg tey jii nii lu nu gisul lu anormal ñu ñoo koy réglal sunu bopp ndax tamit du nu xool Cambérène nu naan Cambérène de lii mosu faa am tey mi ngi fay am. ñun jeunes yi ci boppam waxuma mag ñi de mais ñun jeunes yi ñoo motivé wu ci loolu premièrement mooy que ni. soo gisee sa raq wala sa mag buy xeex fexeel ba jéem leen a atte jéem leen wan lii ndax tamit insécurité fa la mu njëkkee da gis ñaari booy nekk ci koñ di rayante bay jamante ñun waa ñun ñun ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci koñ bi doon ay maanaam responsable peut-être nu ma ko mën a waxee ñun ñoo mën a veiller si sunu koñ ku ci nekk mag fi nga nekk doon fa mag yaa mën a veiller si sa koñ dimbali sa waa gox loo gis loo xam ne nii mën na jur loo xam ne nii ëllëg mberteel la wala loo xam ne nii lu ñaaw la yow yaa ciy taxaw ndax tamit soo si taxawee taxawal nga ko waa dëkk bi taxawal nga ko ñëpp mais bul gis ni lii sama yoon nekku ci rek du ma ci lii déedéet tollootuñu dëkk boobu nit ki dangay jël say matukaayu bopp si sa kër lay njëkkee doo ngay génn ci biti waaw ñaawteef yi am ci réew mi euh, li si ëpp bi ci njëkk mooy euh, déggoon nañ Serigne Cheikh mu wax nii am na jinne yu mu déggoon yi taaloon Rwanda ñi ngi si biir réew mi mm. loolu nag nañu sang réew mi wala ñu sangee ko deret mun na am ñooñu ñoo fi wàcc si loolu nag dañ ca war a bàyyi xel bu baax a baax beneen bi si des mooy ñun ñëpp ñu àndandoo dellu si islaam xam nga diine moom buñ ci delloo rek incha allahu taala lépp rek dina delluwaat si sécurité parce que diine mooy sécurité. waaw mais gis nga soo yoree sa njaboot aussi da nga leen yar si diine yar leen ci islam yar leen am ñëw am yar am ay teggin mais euh, bi yar bi fi yar jógee ay teggin jóge fi yërmande jóge fi ndimbalante jóge fi euh, yooyu bi mu fi manqué ba tey si la insécurité yokk si réew mi. li gën a wóor nag mooy rey geek yu mel noonu am na fi dégg naa ñi tam wax affaire peine de mort loolu nit ñi ñoo koy wax mais yàlla moo ko njëkk a santaane. Euh, sécurité na nag li ma waxoon mooy islam rek suñ delloo si alquran dellu si sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek incha allahu taala euh, sécurité dina dellu si waat si réew mi baax a baax waaw. ok jërëjëf.